ala ni nga ko daan ni nga ko daan xoolee rek ñi ngi ko tàmbalee ci ndigal lu jiitu li nga xamante ne amoon nañ ko ci Cheikh Salih ci 1994 mars 1994 mu joxe ndigal li sëriñ Afia ak ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon dem ci moom loola itam ba ko santaane mu nekkoon liggéeyu saytu rek ak taxaw ak taxawu jumaa ji ba mu mel ni mu war a mel rek ci ci lislaam loola ci lañu ñu woyal mu am yeneen liggéey yoo xam ne dolliku na ci setal jumaa ji ak fexe ba mu méngoo ak ni nga xamante ne noonu la war a noonu la war a mel ci lislaam euh, boo boo boo wëyee nii ci pano bi ci topp rek da ngay gis yenn ci ay photo yuy firndeel taxawaay yooyu nga xamante ne daayira muxaddamatul xidma mi ngi koy amal ci barab bu sell bii nii bokk na ci fexe ba tàpp yi nga xamante ne moo fi nekk muy set lii ay jamono nii lañ ko daan def waaye jamono dox na ba ñu liggéey ak murid yi nga xamante ne fu ne lañ njëkk ci àdduna bi te am yéene yi liggéey Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji bañ am machine boo xamante ne mooy raxas tàpp yi bokk na ci liggéey bi itam niñ koy dëppalee ak jamono barab bi nekk barabu ziar jamonoy koor rawatina murid yi di fi ñëw ñuy taxawal ndog yooyu nga xamante ne sag jàppale ak liggéey bu am solo ak ànd ki ngeen ci ànd ak ñoom daanaka danañ ci def lu tolloog juróom fukki million wala lu ko lu ko lu ko mat di wéyal fi sëñ am di taxawee rek muy lu aju ci taarixu jumaa ji ak liggéey yi nga xam ne fi la ko sëriñ Fallou bàyyi woon bi nga xam ne sëñ Abdoul Ahad Mbacké ñëw na tamit moom li ko tàmbalee 1969 ci la njëkk def ab euh, leeral jottali murid yëpp yéen ñi nga xam ne am na ko ci jumaa ji mu yeesal bu njëkk gi ak taaral bi ak 1971 tamit mu defaraat miir bi nga xam ma war wër jumaa ji ba ci 1987 mu wax liggéeyu yokk bi ak yeneen liggéey nga xam ne def na ko lépp ci dëkk bi ak ci jumaa ji. gannaaw bi ñu gëstoo ci xalifay sëriñ bi dañoo daal di ubbi woon beneen page beneen xët di gëstu ci mag ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak sëriñ bi tàmbalee woon ak ci njabootam gi. ñu tàmbale woon ci Soxna Fat Dia daaw jéeg ci moom lañ gëstu woon gëstu woon nañ ci taarixam fi mu jànge ak itam effort bi nga xam ne wala boog liggéey bi nga xam ne def na ko ci jumaa ji euh, la ci ëpp solo mooy daana jaay ay takkaayam daan ko jébal Cheikh Mouhamadoul gannaaw bi fi Cheikh Mamadou Fadil nekkee it daana ko jàppale ci lu bëree bëri bi mu demee ba làqu wax nañ ne projet bi Cheikh Abdou Lahad njëkk a def te du sori 1969 mooy bi muy bi mu yëglee yokk jumaa jeeg taaralaat ko yeesalaat ko bokk na ci ñi ñi ci njëkk joxe seen addee nga xam ne ci at moom ci la làqu moom soxna Fadil gannaaw bu loolu jàllee ñëw nañ ci euh, Serigne Mamo Diarra borom Cham moom it gëstu nañ ci ak dundam ci am njàngam ba ni mu wax nañ ni yu baree bari ci ay jeexitam euh, wut nañ ay photo yoo xam ne day euh, misaal loolu di ko firndeel waaye li ci bees ren muy maam Thierno Ibrahima Faty kenn ku ci ne xam na taxawaayam ci jumaa ji moo tax it bi ñuy gëstu gëstu nañ ci am njàngam ak euh, ak tarbiyam waaw moom la ko sëñ bi njëkkoon a taxam dëgg la dëgg la hmm, waaw loolu leer na ci gëstu bi wax nañ jëf yi nga xam ne jëf na ko ci jumaa ji Euh, ay ak njabootam ñëw nañ fi. ni ci làkk kàllaama yi wutee wutee euh, daanaka lii yeneen la rek ci ay téere yi nga xam si gaaral nañ ko am na yu baree bëri yoo xam si sax jotoon nañ koo kii boo xoolee téere bu ci mel ni xaayadu rabbaani nga xam si si ci Amadou Bamba Muntaxa moom mii mooy président d'honneur bi moom moo ko bind ñu def ko def nañ ko chinois am na portugais am na allemand am na espagnol am na italien am na français waaw waaw waaw kii ab téere la bi xam si inspecteur Lo mi Mamadou Lo moom moo ko taalif ci sëñ Baye muy téereem bu am solo boobu Sabiru Salaam professeur Mouhamadou Galaye Ndiaye bii sëñ Abdoul Ahad Mbacké sëñ Modou Mamoun Ndiaye moom moo ko taalif muy jëmm ji nga xam si borom dafa féete diwaanu France waaye moom day bind lu baree bari ci njaboot sëñ Tuubaa bind nañ sëñ Modou Moustapha bind sëñ Fallou bind sëñ Abdou Lahad bind nañ sox soxna Fadja noonu la ko toppee ci ci waa kër sëñ naka noonu président Babacar Khouma moom moo bind la prière sur océan si juli juli géej gi euh, am na téere yu bëree bëri yoo xam si yéen bokk taalibe yi bi nag Mame Cheikh Ibrahima Fall sëñ Kor Sène Sarr ak sëñ euh, docteur Doudou Malick ñu nekk ay professeur lii nga xam si moom la sëñ Babacar Xuma moom mooy président association bi moom la bind ci julli géej gi waaw bii waa histoire générale du moom nag dafa nekkoon ci si comité d'organisation ñuy taxawal julli géej gi def na fa ñaar fukki at moom mooy magi soxna Sodu Xuma waaw ñoom si loolu lañ sukkandiku ma ci bii waa histoire générale du Sénégal la am na lu ñu fi jotal naal ba waa raw di defaat ci téere bu am solo tuddee ko livre blanc waaye bii professeur Anta Babou moom moom jëlaat kii bi tëggaat ko bind ko ñu génne ko ci histoire générale du Sénégal kon loolu moo nekk sëñ Madal Fawzeyni bii sëñ Modou Mamoun Ndiaye moo moom moo ko traduire ci français téere bu am solo def def ko ci kàllaama yu baree bëri ak yeneen téere yi nga xam si ay mbokk taalibe yu bëree bëri jot nañ koo gaaral Cheikh Abdoul Bachir noo ngi lay nuyu baax di la di ziar Serigne Afia di leeral ni lii mooy stand bi nga xamante nii moom la daayiratu Rawdu Rayaahiin indi ci exposition ren bi ci njiital Serigne Cheikh Mbacke Niang mi nga xamante ni moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu àlla ña as ni nga xamante ni noonu la ñuy ànde ànd koog daayiratu Muxaddamatul Xidma ci njiital Serigne Afey ak association écrivain Mouride yëpp ren jii nag ñu indi woon téere yi nga xamante ni daayira bi mool na ko tàmbalee ko ci téere yi Serigne bi bindal boppam. te benn jiitu ci masaalikul jinaan ak mawahibul quddus ak jawharun nafis naka noonu tamit indaale nañ mbooleem jàngat yi nga xamante ni dafa aju ci yoonu murit mooy diraasaat xawlal muridiya ak ñeenti waxtaan yi nga xamante ni at yi yëpp yàlla dogal def nañ ko waaye indi nag bu ren bii nga xamante ni moo nekk waxtaanu ren wi dëppoog al islah wa tajdiid inda cheikh al xadim fikran wa marsatan yeesal ak joyante gi sëriñ bi def ci wàllu xalaat ak ni nga xam noonu la ko jëmmale waaye nag biñ ci noppee gaaral nañ tamit abdullahi wa qadimu rasulihi bi nga xamante ni alhamdulilahi rabbil alamin baneen bi ci topp nga xamante ni moom ci ndigalul kilifa yi lañ ko ame mooy mooy subahaat mooy lënt yi ak njuum tey ñu def ci murit gi ak sëriñ jëmmi sëriñ bu mag bi ñu tontu ñi nga xamante ni dañoo yàgg a ay tooñ ci yoon wi ak ay njuumte yoo xam dañ koo bind ci yoonu murit yàlla def na bii mooy bu njëkk bi ñaareel bi noppi na ba ma nga ca fan koy moole incha allahu taala bala ñuy egg ci gàmm gi dina egg si yeneen yi ci des nag mooy lenn ci ndénkaan yi sëñ Tuubaa yi ak xikam yi waaw alhamdulilah naka noonu tamit min fatawa yi nga xamante ni sëriñ bi daan na ko def kon daal Cheikh Abdoul Bachir yi mooy yi nga xamante ni moom lañ indi woon waaye nag Cheikh Mamadul taxaa dafa sàkk woon ci rawdu at mu jot muy génne ab majala bii nag moom mooy nekk yoon wu njëkk wi nga xamante ni ci lañ ko defee mooy majalatu rawdu bi bële ci mujj mooy livre blanc bi nga xamante ni waa bii mooy bi ci bi ci njëkk bii bu daaw la woon bu ren bi yàlla dogal xataayu liggéey bi moom moo tax noppiwul bii nag mooy livre blanc bi nga xamante ni waa histoire générale dañ ko defoon yàlla dogaloon ñu defoon ci ay njuumte yu rëy ci jëmmi Seexul Xaddim bi ak yoonu murit ñu tontu woon leen bu français bi moo nekk nii bu arab bi ñu ngi ci di liggéey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Serigne Bassirou ñu ngi lay nuyu te di la dalal di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp. di Serigne bu Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak Serigne Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne. moo jiite station académie station écrivain Mouridia di nuyu tamit daayira Rawdu Rayahin euh, Serigne Cheikh Mbacke ñang teewal leen fi liggéey bi nga xam ne moom lañu àndoon di ko def ci biir màggal bi muy ci exposition bi nga xam ne def nañ ko fi ngir gaaral fi histoire jumaa ji ak euh, ñaari kuréel yooyu nga xam ne ay bindikat dañuy bind ci yoon wi moo xam ci fànn gu nekk nga boole woon ñu ñoom daaw ñu tàmbali di ànd ak ñoom fii ci exposition bi leeral nañ la liggéey bi ci biir fii nag dañuy lay leeral ngir liggéey bi nga xam ne day daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def naka jekk rawatina su màggal gi ñëwee mu rawati mbooloo mi nga xam ne ñoom nga jàkkaar lool di lenn ci ñi nga xam ne doon nañ ànd ak ñoom liggéey bi ak ñi nga xam ne yeewiku nañ daayira Muxaddamatul Xidma nag euh, liggéey bii nga xam ne moom lay def ci màggal gi xam ngeen ne dafa yaatu moo tax dafa ubbiku am na ay cellule ak ay daayira yoo xam ne ñenn ñi euh, dañoo ñëw ngir tàbbi ci liggéey bi ñu man cee ràññee muxaddamatul xidma bu luga ak muxaddamatul xidma bu Touba ilhamu latiful xabir daayira safinatul aman muxaddamatul xidma dakaar ak wakaana xaqan ak daayira xidmatul masalik boo xoolee ñooñu ñoo ñëw bi ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma daayira bu nekk dafa indi mbooloo soo totalee ñi nga xam ne doon nañ liggéey ci biir màggal gi euh, séddale ko ci ay commission muy commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu sécurité ak ñi yor wàllu rang yi ak ñi yor wàllu cet gi ak ñi nekkoon ci waañ wa ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci commission culturelle bi ci exposition bi loolu lépp boo ko xoolee deux mille deux cent cinquante deux personnes lay doon. maanaam ñaari junniy nit ak juróom ak ñaar ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar doon nañ liggéey ci jumaa ji ci màggal ñoo ñëpp nag euh, daayira bi moo leen kufriroon ci lu aju ci wàllu seen liy doxal seen mbir lépp ci màggal ci bernde yi ak yëpp ñu bëgg di doon leen berndeel ngir bëgg ni ñuy berndeele ci ci seen i kër ñoom it ñu koy dunde fii ci màggal ngir ñu man ko ndax liggéey bi dafa yaatu ndax 24 sur 24 lay doon banqaas yi nga xam ne moo nekk ci daayira bi yëpp yëpp yëpp dañu doon dox ci biir màggal bi muy commission culturelle bi commission organisation commission sociale ak santé euh, gis nga district bi nga xam ne ñëw nga fi barki démb tamit visite ko ak liggéey bu yaatu bi nga xam ne am na fa ak docteur yi ñu koy àndal euh, loolu tamit sëriñ bi nee nañ jot li mbokk yi ci doon jàpp muy euh, ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ci infirmière bi muy docteur Ndeye Maguette mi nga xam ne moo jiite district bi docteur Abdou Lahad Faye mi nga xam ne moo doon jiite ñi doon jàpp ci wàllu privé bi médecin privé yi ak mbooleem ñi doon jàpp ci garab yi keroog bi nga ñëwee defoon nga appel ci laaj mbooloo mi ngir ñu indi ay garab euh, ndax soxla gi ñu koy soxla loolu it wuyusi nañ ci bu baax ndax borom pharmacie yi euh, seen président pharmacie yi di Serigne Mor Thiam ak euh, Serigne Abdoul Aziz coobaan def nañ ci liggéey bu rëy rëy waaye di ci beral cant professeur Daouda jaay moom it indi na fi ay garab yu bëree bare bëri ak bira euh, waa Jurbel tamit ñi nga xam ne muy pera Jurbel ci njiital sëriñ Mouhamad Mahmoudan Lo ñoom it indi nañ fi ay garab kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma doon nañ ko def ci biir euh, màggal gi di ko ànd ak mboolo yi nga xam ne tudd nañ leen muy liggéey bu yaatu yow nag yaay jëwri màggal gi jiite comité d'organisation bi jaadu na boo ñëwee tamit ñu leeral la liggéey bii nga xam ne doon nañ ko def ci biir magal su ko defee kàddu gi dañ la koy dañu koy jébbal euh, sëriñ Afia buso mu dalal la euh, yëkkati ay kàddu su ko defee bu ñu noppee ñu jox la kàddu ngir waxtu wi jege na. maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mouhamadou Bachir ñu lay nuyu bu baax ci turu mboolem njabootu sëriñ bi. ak ci turu mboolem taalibe murid yi ak képp koo xam ne bëgg nga lu baax ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne mosu dañ di ko taxaw ci lépp loo xam ne daar lépp loo xam ne yoon yi itti na ko euh, muy ci biir muy ci bitti mu lu ñuy def lu ñuy wax mbaa lu ñuy joxe lépp loo xam ne itti woon rek ñëpp xam nañ di sa ba mu mel na mu war mel kon loolu ñooy jotal ak cant ci turu mboolem murid yëpp mu njaboot sëñ gi ak yéen taalibe yi ak ci ñëpp ñaan su borom dool sa taxawaay bu baax a baax a baax su borom musal la aar la bàyyi la sa xel ba lépp loo yéene nga mën koo defee nu kawe ni nga ko bëggee rawatina nag ñun daatu Moukhaddamatoul Khidma ñun moom doon na beral loxo ndax xamuñ sa xat-xat xamuñ sa itte xamuñ sa tàng na xamuñ naaj na waxtu wu ñu soxlaa rek nga bàyyi li nga nekkoon ak lum farata farata ñëw teew ci suñu kanam jot li jot teew ci kanam ba ba ñopp ci yow. loola moom kon suñ tuntu bopp la koo xam ne ñun daayira bi ñoo ko war loolu ko sant nag ba faw nga ñaanal daal euh, suñu borom laa sàmm ba mu jot rek mel nii ndax am di wax shukru bu ñu ko tàmbalee taxu ba léegi dañuy wax ne at mu jot dañuy wax rek ne nii mel moo suñuy mel kon loolu ak cant la te bisu màggal gi di bis boo xam ne bu sooxee lu bari sooxee su jegee lu bari jag yàlla nag ñu lay tawfeexal ba ab yor dañ naan ren jii li gën a euh, réussir kon loolu yaa ñu jëm kanam ci barke Borom Touba amoon nañu yéen a yëkkat suñu kàddu bu baax nag waaye tey wér ko mayewut moo tax dañuy jotli kàddu yooyu rek jox seen bilaat mu mottali mottali ko moo tey ñu ngi sant bu baax tey gërëm tey ñaan Cheikh Mountakha yàgg fi yàgg laa liggéeyloo nga a def yàgg ci am ndoom mel ni ci am ba faw ba faw ba faw barke Borom Touba salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaw salaamaaleykum wa sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu sunu kilifa gi toog sëriñ Afia Bousso di la nuyu itam ci turu daayira Muxaddamatul Xidma yëpp waaye di nuyu ci turu Rawdu Rayaahiin sëriñ Cheikh Mbacke ña ngi teewal leen bi di leen nuyoo itam ci kuréel gi nga xam ne moo lëkkale bindikat yi yoonu murid bi te sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Muntaxa jiite leen te ñu teew fi nii tey di la jébbalaat liggéey bi ni ñu ko baaxoo defee at mu jot bu ñu ko ñu daje ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ñoom lañ doon liggéeyandool ci màggal gi muy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir jumaa ji ak fu ñu fa mënoon a nekk ak ñi nekkoon ci barab bi ñi doon taxawu julli ñi doon setal ñi doon nekkoon ci waañ wi ñi nekkoon ci rang gi ñi nekkoon ci fajukaay bi ñi nekkoon ci exposition bi ak foofu waay mën a nekk dégg nga léegi ni la ko sëriñ Abdou Lahad waxee nga xam ne lim bi takku woon na lool toll na ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom ak juróom ñooñu ñëpp lenn rek moo leen fi indi muy sàkku ngërëmul Serigne Touba ci parce que ne liggéey itam ci barabam bu tedd bii liggéey boobee nag ñu di la xamal ne ñun ñi nga xam ne ñun lañ ko àndaloon day ñu ngi seede ne liggéey nañ ci seen kemt kàttan ngir jëm koo dëppale ak li nga xam ne mooy bëgg-bëggub sëriñ bi façon nañu yéene bañ fiy teew lépp lu sëriñ bi bëgg ñu dox ñu doxee ko fi ku fi mën a ñëw rek doxee noona lépp lu sëriñ bi di bañ kenn du ko fi andi loola taxaw nañ ci seen kéemtalaayal kàttan ba léj ci seen i yëg-yëg gisuñu lenn lu fi xew ci yooyu nga xam ne sëriñ bi bëgg ko fi te ni fi sëriñ bi bëggee woon noonu la fi ñëpp nekkee woon. bu liggéey bi egsee fii nag nga teew ci sunu kanam teewal fi sëriñ bi te sëriñ bi moo fi sëriñ Touba ñu ngi lay jébbal léegi liggéey bi di la jébbal liggéeyu mboolem ku nu àndaloon liggéey bi ba ci sécurité bii nga xam ne ñoo taxaw nii ci sa ginnaaw. te soo noppee danañu nuyoo incha allah muy ki nga xam ne mooy police yi nga xam ne ñoom lañu ñu woon fii naa bi ak ñi mu àndaloon ñi yore liggéey bi ñun ñëpp ñu maasee jëmbal la liggéey bi tey jii di la wax ne mbooleem daayira yi fi teew yëpp ak mboolem kuréel yi fi teew yëpp benn bëgg-bëgg rek lañu am benn bëgg-bëgg bi rek lañu am lañ ci am te mooy ngërëmul Serigne Touba ndax xam nañ ne fu dara nekk rek ngërëmul Serigne Touba moo ko fa def ngërëm loolu nag moom la ñuy sàkku di fas di ko ci fas di sàkku nga fasal na ko ci te te ñaanal na ko ci ñu nit nag ñu ngi ñaanal seex Mouhamadul Mountakha suñ borom yàggal ko fi lool mu mottali ay yéeneem yëpp te nu ànd koog moom yow mii nekk ci wetam di ko jàppale tam suñ borom kattanal la musal la aar la sàmm la mottali sa yéene ci moom mottali sa yéene ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bépp loolu rek mooy suñu bëgg-bëgg ñu ngi sant ñëpp di gë sëriñ suñuy bëgg-bëgg ndax boo ko taalibe yi déggee rek mu mën a saafaraw ndax ñoom liggéeyal sëñ bi rek la ñuy wër muy bii nga xamee ne soxla nañ machines yi nga xam ne ci lañ doon nettoyer moquette yi ren jii nag li nga xam ne moom ñi ngi koy sàkku ci ñaan te di ko soxla ngir ñi ñuy seetaan mooy benn oto mbalit boo xam ne day nekk ci loxol daayira bi saa su nekk mbalit mbalit miy wër jumaa ji day bëri te i ICC mi nga xam ne ñoom la ñuy jàppalanteel jàmbaar lañ lool ci liggéey bi waaye daayira bi am oto boppam boo xam ne mbalit mu fi nekk mu mën koo jël am na ci solo beneen bi mooy benn oto dox boo xam ne dayre bi daf koy am ndax xam nga ne bis yëpp dañu nettoyé te karo yi yaatu na bu leen di mën a indil di leen rootal ndox di leen duyal bërigo yi nga xam ne ñoom lañu ñuy nettoyé jumaa ji yooyu yëpp it day ay bëgg-bëgg yoo xam ne ñu ngi koy sàkku ci e, fu taalibe nekk ngir ñu mën koo indi muy jumtuwaay yi ñuy setale ci jumaa ji ñaar yëpp kon ñu jébbal kàddu gi sëriñ bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Xaafiya Buso al imam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di la jotti kàddu yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu fi sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñu di ko ñaanal bu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mottali mbooyam naan ak sumb yi nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa di teg nuyoo bi mu jëm mu jëm ci mboolem daaira muqaddamatul xidma sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ci yitte ji ak posture bi ak taxawaay bi waxtu wu ne day faral di wax li gën a jafe nag mooy yitte yenn jàll dafa ne ko ndax liggéey bii 1994 ba duggee ci seen dox ba nëgg ni musu dana toqi musu dana tàyyeel mosu leen a dellu ginnaaw bu ngeen xasee engagé ba bi waxtu yéen a gën a sellal seen liggéey di gën ñoo ngi liggéey kon sëriñ mu ngi leen di sant di leen leen sant itam ci ni ngeen ñoo leen penc mi ak jumaa ndax barab bii kat fii lépp nekk suñ jaakaar àddina kon barab bi ñëpp ko war a wormaal te nit ñi day def luñ meen rek worma jëlaan ci war day des. yéen nag taxaw ngeen ci tàggat ci nit ñi def ci fulla ak fayda ba kenn ñemeetu fee def dara lu dëppoota borom kon loolu mooy di jiitu cant bi la ca des jàkka xam ngeen ne dafa am lu laaj ci wàllu taxawaay ak nos ko ba séparé góor ñi jigéen ñi ñii di dugg fii ñii di génne fee sàpp yi ni ko lislaam santaane lépp ngeen di ko taxawu boole ci di ko setal ak di ko nos ak waxtaan yi nga xam yéen ak fii di kon seenu liggéey du liggéeyu màggantuwaay rek waaye at mu at mépp la lu ne yéen a ngi koy def lépp lu ngeen jàpp ne mooy taaral jumaa ji wala moo koy rafetal rek guddeeg ba ci yéen ko gëstu di ko def kon sëriñ bi nee na ñu leen di sant bu baax te leen gërëm di leen berlu cant itam ci liggéeyu màggal gi ñu génn ndax jumaa ji mooy jubluwaayu murit yëpp kon liggéey bu jafe la ndax foo xam ne ay millions yi ñëw fi ñëw ci diirum ñetti fan loolu yombute lijjanti neexut a waaye ci seen dogu ak seen taxawaay ak seenu mën a nos ak déggoo tax na ku agsi mën a siyaare te góor ñi jiyee ñu duñ daje ba ñëpp jeex ak jàmm kon loolu mooy di jiitu jant ko ndax ci doolu ko waat mooy gane Serigne Touba yi nga xam ne ñu ngi leen di taxaw ci ñaari kër Serigne Touba yi mm. wóotuñ ci wóotuñ ci sëriñ bi mm. li ko taxaw taxawaay bu gën a rafet ñu la koy séeréel kon cant gi ak ngërëm di daal dañ koy dañ koy dañ koy jottali waaye nag dañ leen di bàyyi Serigne Touba bi nga xam ne moo tax ngeen futti ko bàyyi seen lépp dëddu lépp nekk ci moom amut leen solo ci leen yàlla na Serigne Touba bi ngeen di jëfal nangul leen ko te eh, rafet nañ jortu ci nit Serigne Touba nangul kon yàlla yàgg ci seen i loxo leen yàgg koo taxawu léegi sëñ Abdoulaye bu sa wax léegi itam kon xam naa yitte jumaa ji moom fu ko murid ji déggee hmm. gëm naa ne du taxaw hmm. mooy oto bi nga wax ak oto ndox bi hmm. insha allah xam naa ndegam yëkkati ngeen ko moom fi saasa dana daal di fayu ndax fii moom nit ñi dañuy njëkkante ngir xam du jumaa ji soxla ñu def ko kon jàpp naa ne balaa fan yu néew ay nit dana ñëw sa ko bu ngeen yeexee sax mu ëpp kon ñu ngi ñaan bu baax a baax ñu teew fi na gën déwén jàmm mboolem dawaayir yi leen doon jàppale ci liggéey bi itam. Hmm. ci togg yeeg ca taxawaay bi yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñëpp ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ak ci daraja bis yi yàlla Serigne Touba leen seen liggéey ñoom ñépp ku fi indaale woon aajara suñu borom faj ko. ku fi indaale woon jàngoro suñu borom saafara ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala.